bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wasalatu wasalaamu ala sayidi alambiyai walmursalina wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina stafa mbokk yi saxoo di wettilikoo ak it di bàyyi xel di topp programme wu seen chaîne bu mag bii di seen Buzz TV fi jamono toll du loo xam ne dañ koy wax kenn ku nekk ci ñun mooy am feebar boo xam ni lëmbe na adduna bi muy feebaru coronavirus lan moo ciy taxawaayu ñooñ diine ak jàngalekatu diine yeeg asaatide yi ñi nga xamee ni xëy na ñoom lañuy ñuy déglu ci suñ mbiri diine ak tamit lan mooy doxalinu diine bi nga xamee ni war na jamono ji ñoon diine taxawee ko loolu sabab seen programme bi di religion et la vie ngeen ci ànd ak seen mbokk seen xarit Oustaz Aboubacar congaan tey ñu ñëw fas yéene am ak waxtaan kenn koo xam ni dootuñu ko présenté fii ci Sénégal ci ay jàngaleem yu mucc ayib macha allah rabbi Oustaz Iran Ndao moom lañ fas yéene am moom waxtaan tey incha allahu rabbi euh, oustaz Iran. bakar ñu ngi lay nuyu di nuyu caméraman yi nga àndal di nuyu waa seen bës ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi koy seetaan ku ci teg sa bër yal na yàlla dëgg ci fajal la say soxla yépp euh, émission biir ku ko seetaan. yàlla bu la dara dal ci lii ku yàlla bu ko dal kooku ku mu gis yàlla bu mu ko dal mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal. munu ji li ñuy wax rek coronavirus dafa feeñ ànd ak ay loi ay feeñuwaay yoo xam ni moom la ànduwaaleeg bokk na ci li ñu gën a ràññeeku jamono ji ay mesures yoo xam ne état bi jël na ko ci dàq dajaloo yi dajaloo yi dem ba nga xamee ni dàq na démb fii ci senegal jullit jumaa ñu baree bari rawatina fii ci ndakaaru taxawewuñ ko. suñu ne congaan daje yi dañ ko war a arrêté ñu ne lu tax ñu ne li docteur yi gis mooy nit ki mën na ko yor te kenn du ko xam mu dend ku ko yorul wàll ko ko ti du ko xam ñu bëggoon nag nu ñu mën a wàññee daje yi dana gën ñu ne kon nañ arrêté kaaru biis yi muy benn na kaar yi arrêté nañu tëj garage nañ tëj resto yi nañ tëj hôtel yi nañu tëj marché yi boîte de nuit yi nañ ko tëj baari na arrêté auberge yi nañ ko tëj su yooyu nag buñ ci dëppoo ba tëj yépp nag ñu doog a xool ndax war nañu lal daara laal daara parce que hôpitaux yi kenn du ko tëj lu tax fa la ñuy fajoo hôpital bi gën a rëy ci hôpital yi mooy jàkk yàlla dafa wax ne moom itam moom wa annal masaajida lillaahi man suuf si li muy réer yëpp jàkka yi laa fi am yàlla wàcc feebar bu tol nii bu ñu réyal man man Iran feebar bi garaawul yàlla moo garaaw nañu dalal sunuy xel est-ce que xam nga ne congaan corona bi ne dugg na feeg léegi dégg goo ko dee moo na boobaak léegi li fi dee kenn xamul nu mu toll ci corona dalu leen loolu da nañ ko dalalee xel bi mu duggee léegi rayagul kenn ti yàlla bu mu rey te boobaak léegi ay ñu ngi suuli ñu ngi sang ñu ngi jullee ti ñi dee ñëpp corona laalu leen kon ñu gëm yàlla ñu gëm yàlla wóolu yàlla gannaaw yàlla jàkka la am ne moom la moom moom moo ko tuddal boppam waxul ne kër congaan sama kër a waxul ne kër màbb sama kër a waxul kenn ni sama kër a daf ne man suuf si maa ko moom waaye barab yi ma ci am mooy jàkka yi. xam nañ lii bi yàlla moom. tuddal na ko boppam ci alxuraan wàcce na nattu ci sunu kaw léegi lu gën mooy nañu dem fa mu ne fala moom ñu toog fa jël li ñu ne mooy waxam muy alquran laa yamassuhu illa almutahharuun tanzilun min rabbil alamin nee na ci man alquran ci sa man la jóge maa moom jàkk maa wax alquran ñaar yi muy rëccukaay ñu dem ca jàkka ji ànd ak sell jàkka ji sell na ba pare ñun ñooy raxas suñuy xol ndax booy tuub nag booy jéggulu da ngay raxas sa xol ki nga bëgg mu jéggale day fekk mu gis ne yow jéggal nga nit ñi congaan na jéggal Iran Iran jéggal ko caméraman yi jéggalante ñi nga xam ne ñoo ñu set ñun ñëpp ñu wante bu ko defee yàlla xam ne ñun ku ci ne yéenitoo sa morom safaan yàlla nekkoon gaar yegg si ngeen ñu jël téere bi wesaare ko képp ko mënul jàng bul laal ñu jël ñi am man alquran ñu jox leen ku nekk jukki ñi nga xam ne kaamil bi matalewu leen ñu jox leen ko ne dog ne la jàngal nàngam ba ba ñuy pare suñu paree ñu sukk ci kanam yàlla wan ko ne yaa ñu bind yaa ñu moom yaa sañ ci ñun yaa wàcce feebar bi lu la neex ngay def dañoo toog pour nga ñaan la nga sarax ñu jëlee ko fi man loolu laa gëm man laa wax de loolu laa gëm te buñ ma laajoon conseil loolu laa leen di conseil parce que li fi téye marché yi tëju ko bàyyi fi tataay hôpital bi ñuy fajoo kenn sañu ko tëj kon kenn du faju mais beneen hôpital a ci wetam mooy jàkka yeeg ordonnance bi mooy ban alxuraan bâtiment bi mooy hôpital bi médecin yaa nga fa jàkka ji beneen hôpital la médecin yi mooy borom xam-xam yi ordonnance mooy alxuraan nañ ko nangu gis nga bu ñu ñëgee du sotti. ànd ak loolu yëpp yaa oustaz euh, kilifa yu diine yu bëree bëri tamit ànd nañ ci dogal bi nga xamee ni état bi jël na ko tamit oustaz Serigne. man xam naa ñu bëriñ jullit yow xam nga leen ay këri daara yoo xam ne ñafa ni julli nañu te li may wax amul ko ma ciy xalaat gis nga fii fii ma la tegal sama baaraam fii mbindeef newu fi yàllaa fi ne fii borom bee fi ne fii borom bee fi ne gëm leen ko man duma nit ku ñuy conditionné kenn duma ko. yonent du dox sama diggante yàlla malaaka du ci dox jinne du ci dox nit du ci dox sama diggante ka ma bind kenn du ci dox sama biiru yaay maa ngi moom sama ndiggu baay maa moom ba may juddu maa moom mu may ma meew may nàmp ba ma màgg mu jox may bëñ ba ma toll nii ma toll ñeme naa fii dugal corona ñeme naa dox sama diggante yàlla korona da koo sañ kon ma rendi ko fi ñu toll kenn ku nekk ci ñun li la war mooy dem ci néegab yàlla bi def ñaan at ndax kat ad duaa u silaaxul mu'min moom daal loolu la gëm te loolu ci lay ñaan état bi tamit ñu fexe ba nga xamee ni ñoñ diine dinañu dinañu def loolu ndax oustaz gis nga ni doxalin bi coow li amee ba léegi ñu ngi gis ay nit yu def ay don di ko joxe feneen ak feneen dégg guma ci daar yi yaa oustaz ban njàngat nga am ci loolu congaan santal yàlla congaan feebar bi amul doole yàlla am doole feebar bi mënta lor yàllaay lor feebar bi voyagé wul ñëw fi yàllaa ko transporté indi ko te noot bi mu ñëwee fekk na fi ay mbokkam yu ko teeru ay feebar ñoom cancer a ngi fi ñoom euh, sida a ngi fi ñoom euh, ulcère a ngi fi ñoom ñoo ko teeru ndax ñooy mbokkam dalal ko fekk na fi ay feebar bi mu ñëwee léegi reyagul kenn te dañuy ñaan bu mu rey kenn donc du lu diis lu ñuy tiital xeet wi yóbbu fitu nit ñi nee naa la man maa la ko wax sànq gis naa ci ay sëy yu tas lu ko tas ndaw si dana moo jëkkëram luñ bokk awlal parce que dañ ne daje mbooloo mi buñ ko defee mën nañ ko wàllante mu ne jëkkëram damay fanaan ci saal bi du ma fanaan fi wala ñu ut ñaar lal nga tëdd fee ma tëdd fi coow loola lañ topp ba sëy gis naa ci juróomi sëy yu tas te est-ce que du ko ëpp lu tax mu tas dañu tiit tiitaange rek la tiital nit ñi ba xoola léegi jàkk yi bu ñu jullee xam ne gis naa jàkk joo xam dañuy pousse écarté wu kee fële diggante bi dana mat lan <laughs> un mètre wala genn wàll kenn du jege sa morom te ngeen gis bu yàggul ci at yëpp bu sam di jotee ngeen dajale ay junniy nit ci ci ci eh, grand théâtre wala ci yenn bois di ay junniy doomu aadama ñu tegante dana di diisonte di riisonte ba fajar yàlla tere ko ngeen lànk corona ñëw tere ko ngeen nangu par fot kenn dootu fi. ci feebar bi la ñuy wax est-ce que tamit discours bi gisoo ni xaw na génn tuuti contexte feebar bi. yaw sax non non ci ko ci la bokk parce que feebar bi ñëw tere joxante loxo du sànq yaa ngi ma naan ndax ma jox la loxo may la tegal fii loxo bi yàlla terewul góor ak jigéen xoolante terewul jigéen xool góor terewul góor jox ko loxo loolu nekku fi woon feebar bi moo ñëw dindi ko. bi ñu ko yàlla teree dañoo lànk feebar bi ñëw ñu bàyyi ko ci laa maa ngi ci contexte bi ci biire biir laa ne waaw parce que lépp lu ñu yàlla tere woon ñu lànk bi feebar bi ñëwee tere nañu ko ñu bàyyi ko donc kon daara yi ci seen bopp bala ñoo wax lu ci jëm nañu wax lu jëm ci yeneen daje yi te bàyyi xel jàkka yi bàyyi xel daara yi ñaanukaay la man sama taxawaay xam naa ko léegi bi ma dogee sama koor Abdou Aziz Sall moo ne ci daari sëñ Babacar faj bés bu jot dana danañu wàcce kaamil ñaan utuma ca dara soxlawuma dara man soxlawuma dërëmu kenn man yàllaa ma yor soxlawuma fiftinu kenn man yàllaa ma yor ku bokk ci réew nag di dajale xaay di joxe war ngaa dajale ñaan di joxe loo foofu laa taxawee sama mawxif loolu la taxawaluma ko kenn li war président moo ma war moo la war moo war tous les mooy taxaw aar suñu bopp. li nga xam ne digal nañ ñu ko docteur yi wax ko mooy raxasu leen seet leen avant feebar bi fekkoon na lislaam digle ko. an nasaafatu min al iman yonent bi ne na set ci gëm yàlla la bokk set ci gëm yàlla la bokk kon il faut ñu set kooku farata moo tax njàpp ñëw sangu farata ñëw. sang niiw ñëw sang kuy tuub ñëw parce que set set farata loolu ñu digle ñu def ko li ñuy diwoo ñu diwu lu ñu bindal ñu jënd wax naa ko <laughs> ministre bi naa ko docteur ñett la soxla su la digalee defal bu la teree bàyyil bu la bindalee jëndal soo ko defee mu am mu am njàmbaar am cawarte waaye daal ma dellusiwaat ci congaan li fi bàyyi ba danse bii bàyyi fi kaar yii bàyyi fi riiru marché yii bàyyi fi garage yi bàyyi fa port beeg coow la ak duggante bi génn aéroport yi bàyyi fi restaurant yi bàyyi fi nu mu tudd hôtel yi mën na fee bàyyi jàkka yi du na ko fee bàyyi na ko fee bàyyi bu ma waa dig di wër fu ñu may seeti fu du fu buñ ma soxlaa nañ ma wër man jarumaa wër man sama téléphone buñ ma soxlaa nañ ma woo téléphone man awma loolu. xanaa da ngay ragal ñu wala. non dama lay wax rek dama gis gaa yi gaa yi man man du ma itam sëñ man du ma ragal man du ma tàppet kii man du ma tàppet man mii nit a ki noppam lu ma ciy tàppet loo ma teg ma teg la lu ko ëpp dara nga ci manul mais ba ma ne ci daara ja weexu taa toogu loo ma fa lu ma nit teg ma teg ko lu ko ëpp koo mën a doon. man bu ma doon ragal ñii duñ aw fi ma aw fa ca des dama àndul ci ñu bañ a julli dañuy julli ji man loolu la ànd lu may tàppe dama la bëgg a wax ni looy wër da koy wëri fa mu ne man ak ragal kan laay ragal inna awliya allah laa xawfun alayhim wala hum yaxzanoon yàlla nee na ñi may seen kilifa duñu rëf rëfi duñ tiit yàlla ma yélif nee naa la fii yàlla fi ne ku mënta déqiti yàlla fii mënoo ci man tus du ma tooñ du ma wor du fen feeg feeg yàlla ak may dimbali waaye dama ne nañu bàyyi nit ñi dem ci jumaa yi suñ jullee ba pare ñu lal kaamil suñu paree jàng ko ba mu pare ñu jàng xam ñaanal suñu réew ñaanal àdduna bi lii sañ naa ko wax te ñi julli ji ci loolu la sukkandiku xanaa xamoo ñi julli ji bari na torop yal nañu yàlla def njaboot yal nañu yàlla def njaboot yal nañu yàlla def njaboot am na ñaan goo xam ne maaruful karqi yi moo ko defoon day dàq ñàkk waaw Maodo jëloon na ko fonk lool moom si daaj man fonkoon na ko lool di ko jëfandikoo ba jëloon benn maire ak benn paa ne leen wër leen Tiwaawan boobu pes bi la di ko jàng ñuy wër di ko jàng di wër di ko jàng ba pes ñëwee noonu lay def day dàq ñàkk dàq feebar dinaa la ko jàngal nga partagé ko su neexee sunu borom ak ci moom laay tëjee émission bi bu tëj jàkka yi yiñ ci sonn tëj niñ ko tijji man li may wax xam naa ko de du xale de du ma xaleel de dama gàtt nii rek te yàgg naa ci daara man di li ma gëm mooy bu ñu bàyyi nit ñi julli ñaan wallahi jàmm rek kay am waxuma sax man ay choléra bi xaw ma choléra man waxuma sax yooyu waaw mais yeneen ak yeneen mën na koo faj waaye bu ñu gàntalee yàlla daje bi ah aljamaatu rahma de Moustapha nee na ànd boobu ci la yërmande ne wal furqatu azab maa ngi koy ñaan autorité yi de man Iran Ndao maa leen ko ñaan teg leen lépp ci suuf imaam yi àndandoo julli bu ñu sëlmalee tas kaamil bi suñ ko tas yi jàng ko jàng bu rafet yéene ko booleeg saraxe baax na baax na ku ne fa nga toll taxawal taxawal loolu mooy farata man daal tëj gi moom tiit naa ci man nag mosumaa tiit yàlla dimbalee na ma noonu axal baatu tëj dafa diis nañ bàyyi baatu tëj jàkkaak juma boobu nañ ko bi ci des xam nga congaan benn affaire am na est-ce xam nga màkk gi ñuy wax xam gars yi sax ngi def ay affaire di wane picc yi wër kaaba gi ne bu ko nit ñi warul picc yi wër ko xam nga yaa ngi koy gis mais bu leen fàtte ne jullit yi ci dëkk ya dajaloo wuñ ne niñ te jàkka yi chef yi ñoo ko wax ñiy coow dañoo xamul lu xew buñ ne wéy parce que sax màkk tëj nañ mais est-ce que ulama yaa daje. ah waaw congaan su doon ulama wu màkk yépp dajaloo. jàpp ni lii lii la ci yonent bi wax lii la alxuraan wax nañ tëj mais état ni nañ tëj buur baa ni nañ tëj am déet Maroc buur baa ni nañ tëj réew mu nekk jiite réew maa ne na tëj moo gën a daal xelam kon bu leen ti màkk di ko def référence naan woy parce que màkk sax te ñëpp da nga naan buur ba tëjlu na waaw réew sàngam président ba tëjlu na réew sàngam buur ba tëjlu na suñu réew buur bi tëj loolu ngay wax mais bul ni julli julli di tëj ñu ko du tëj ñun amuñu doole te jàkk bi ci des nag bu fekkee nii dem nañu ma defaat beneen conseil suñ demee ba dogu ci ne daal ñoom tëj la ñuy def ndaw yi ñuy yebal ñu dem di fa taxaw moo xam gendarmerie la moo xam police la maa ngi leen di conseil itam ñu mas maslaa waxtaan ba mu bañ jur xët-xët bañ a jur lii lii am ci politique bi entre état bi ak opposition bi nga xam ne bu ñuy marche lacrymogène fii diine laajul loolu mën na alag réew ndax jullit ya ngay dem di leen ko sànni ñàkku ci nitu yàlla bu ca ne nga def ko lenn yàlla dëgg ca indi muusiba loolu it maa ngi leen di ñaan ngeen demee ci xel man mii wax dama bokk ci màcc ci fànn gi nga xam ne laal ngeen ko la ma ca xam-xamu leen ko ca moo tax ma leen di conseil bu doon ci politique du ma ci dugg yéen ñi ko xam yéen a ma koy wax mais lii mbiru daara la te nitu yàlla dafa garab te mbooloo mi li mu bëri bëri am na ko duggul ci jàkk ja te moom la yàlla rus moo tax di ko bàyyi xel bu ngeen mënee bañ a tëj moo gën dellu leen ci gannaaw bàyyi leen ñu ti ñaan su fekkee dogu ngeen ci li ma leen di ñaan defe leen ko xel defe ko sago bañ a dóor kenn ku ngeen fekk muy julli ngeen ba ko mu julli julleem waaw su paree bu ngeen mënee waxtaan ak moom waxtaan ak moom waaye ne coppe rek mosal quelques livres kooku nag du kooku nag doxul ah doxul de man dama leen di conseil man ci daar diine ji laa bokk ci daar yi te li ma ci xam-xamu leen ko ci mu ngi mel ni tey ma duggoon ci régime bi rek da nga gis waa Iran ba mu ñu rey jàngul politique waaye yow bu ñu rey jàngoo diine bu ñu fontoo waaye yow a ca ñaan ngaa ngi tam seen buzz bu ngeen bëggee am buzz teg leen ñaan kii may kii du tijaan de du xaadir du laayeen ab jullit la mag ñi dañoo baax sëñ Tuubaa boo demee ci masaalik yi mu waxul yëpp danaan boroom xam-xam day maa ne ku ne mu tudd la mag ñee mel noonu ñoom fu ñu fekk yiw jël kii Maodo jëloon ku ñëpp a ko mag ñi ma yokk ñëpp nitu daar yëpp a ko xam lii mag ñëpp am nañ ko aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahimi maliki yawmi din iyaka naabudu wa iyaka nastain ihdina sirata almustaqima sirata alladina anamta alayhim gayri almaxdubi alayhim wala dalin amin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixa lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaqi walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala ali xaq qadri wa miqdaari aladim allahu xasbi li diini xasbi allahu lima ilayhi ihtimaami xasbi allahu li kulli baaxin alayna daiman abadan kada liman yaxsuduuni xasbi allahu allahu xasbi liman bisuui kaadabina kadaaka inda mamaati xasbiya allaahu wa inda masalati fi lqabri da faraqin li ma xtaraftu zunuban xasbiya allaahu wa indama nusiba almizaanu maadilatan narju nabiya alhuda qul xasbiya allaahu allaahu xasbi ida mudda siraatu ala matni jahannama maddan xasbiya allaahu allaahu xasbi laa rabban siwaahu lawu tawakkuli tawakkuli dégg nga de tawakkuli wa iyaa bii xasbiyallaahu yaa rabbi salli alal muxteeri min mudarin fi xaqihi qulta xaqan xasbiyallaahu kama tusalli ala alin saxaabatihi maa qaala abdun munibun xasbiyallaahu allahuma salli ala sayyidina muhammadin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 ak feebar yi mu fi fekk ak yi bëgg a wàcc yal na yàlla wàññi yépp te may ñu jàmm amin yàlla